ay karaak fuuf jaari sow nekk fii ci réewum Sénégal te kenn déggu leen fii bëri na ay sénégalais yoo xam ne lu ne jël nañu ko fi lu ne wane nañu ko fi te maanaam kenn déggu leen ñu def benn bruit wala ñu def benn communication te nag université yi nga xam ne ñoo gën a mag ci àdduna bi yépp foofa dem di nga fa fekk ab sénégalais boo xam ne ma nga fay def ay jaloore te ñu baree bari xamuñu leen jaari sow mii nga xamante ni nag mbir mi bëri na coow loola est-ce que du ministre Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom la ñu ko bàyyi leen nekk apparem moo tax mbir mi bëri coowa waaye nag bëri na ay crack ñoo xam tax jaari sow fuufa te si réewum Sénégal gii la ñu bàyyi ko dim bitim réew maanaam di ko tojote yéen a gi xëy di ñu xibaar naan ñi jaari sow nee nañu dafa sur menace ba pare dana ñu ko defal ay examen psychologique yéen a kaay gii du l'observateur nee na Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom la ñu bàyyi la jaari sow ñoom ñaar gisante nañ ndikk yoo jaari sow ma nga woon ca Bruxelles waaye nag jugee na fa ñëw na ci diiwaanu Paris te soo moytuwulee jaari danañu ko indi ci réewum Sénégal ndax ñi nga xam ne ñooy ak njabootam maanaam famille jaari sow ñoom nag dañoo jàpp ne jaari dañu ko liggéey dañu ko mystique loolee loolee moo tax ñoom ñuy sàkk ñu andi leen ko ci Sénégal bu ko defee ñoom tamit ñu mën a def seeni débat débat yéen a kaay gii de Les Échos xëy yóbbu ñu ca diwaanu Thiès ci woppi coronavirus ji journal bi nee na tribunal bu Thiès am na ñaari secrétaire akub greffier boo xam ne amee na fa coronavirus yéen a kaay gii de La Tribune nee na woppi coronavirus ji ma ngay doxantu ca Ndakaaru ndax professeur ya ak étudiants ya am na ñu bari ñoo xamante ni amee nañu fa woppi coronavirus yéen a kaay gii di Walf Fadjri nee na couvre-feu bi jamono ji jeex na Ndakaaru ak Thiès ñoo ngi xaar lan la la président Macky Sall di wax yéenekaay gi di Sud Quotidien ñu fekk fa professeur Iba Barry Camara nee na jamono ji état d'urgence amul état de siège amul waxuma sax waxi couvre-feu la ko waral mooy dañoo soxla ab décret boo xam ne dinañu am signature ndax nag loi boobee nga xam ne modifié nañ ko promulgué ko rek doyul yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ci tribunalum Dakar dafa am benn avocat boo xam ne dafa am ku mu doon layal jekk-jekk daanu crise daanu malaise daal di sedd guyu yéenekaay gi di La Tribune nee na maître Omar Diallo lay wuyoo démb la ñàkk bakkan bakkanam ci tribunalum Ndakaaru en pleine audience yéen a kaay gii de la témoin nee na sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew ca Europe ñoom nag dañoo fas yéene amal manifestation bu xumbute dagan samedi ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la ko waral ak la nga xam ne moo leen metti mooy Boubacar Sèye mi nga xam ne teg nañu ko loxo sénégalais yi nekk Europe ci diaspora bi ñoom nag nee nañu daal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum xoqatal ak wàllum harcèlement ak lu jaarul yoon injustice bi nga xam ne moo am ci Sénégal ñoom danañu ko daal di naqarlu samedi bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci màkkaanu Amnesty International national yéenekaay gi xëy na wax ci Mohamed Cissé américain bi nga xam ne moom la ñu rayoon at yi ñu génn ca diiwaanu la ka nga xam ne moom la ñu jàppoon ne moo def googale ñaawteef ginnaaw bi ñu ko tegee loxo yóbbu ko ci kasu bu Louga da doon jéem a ci far mbëkk miir ba ba ñàkk bakkanam ma ngi ci l'Observateur ma ngi ci Les Échos yéenekaay gi di Source A nee na groupe La Poste liggéeykat yi nga xam ne ñoo fa nekk tey jii ñu yëkkati seen kàddu la ko waral mooy kër ga ci boppam maanaam mooy naax saay kër ga mooy nërmeelu la ko waral bokk na si lu toll si ñeen fukk ak ñaar ci ay milliards yoo xam ne ñu ko faa ronqi te nag yëfu sàmba alaar la yéen a gi xëy na ci collectif ñoo lànk ñoom ñi nga xam ne ñoo doon tuumal waa PDS na ñoo leen yàqal ci nag saisir gi nga xam ne doon nañu ko saisir conseil constitutionnel lu jëm ci loi bi nga xam ne doon nañu ko modifié mu jëm ci loi d'habilitation état de siège beeg état d'urgence bi ñoom waa lànk dañu doon tuumal waa PDS loolee moo tax ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom tim daan nañu yëkkati seen kàddu ku ci mel ni Toussaint Manga Lamine Ba ak Nafi Diallo ñoom yekk nañ musiba ñi nga xam ne ñooy waa lànk ñoom nag nee nañu collectif ñoo lànk ginnaaw bi ñu defee seeni i seeni seen i giraawaalik seen i tooxidoona maanaam nañu ko wéete PDS nag parti la boo xam ne yàq dërëm yombul Toussaint Manga yegg na musiba ak mbelengaan Cheikh Abdou Bara Dolly yéen kaay gi di Vox Populi ak laas xëy di ñu xibaar naan ñu Fra France Dégage ak Y'en a ñoom génn nañ ci coalition ñoo lànk yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ak L'Observateur xëy di ñu xibaar li nga xam ne moo amoon ci tribunalum Ndakaaru ca chambre criminelle journal bi nee na dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dañu ko faa àtte ni ndax moom dafa amoon jëkkër ba am ñaari dooma ginnaaw bi ko jëkkëram wanee ginnaaw daal di koy abandonné si la dem seeti benn xale bu góor ñoom ñaar ñuy ànd maanaam di neexal seeni affaire di sim seen mari ngaañ ba xale bu jigéen ba maanaam mujjee ëmb ba mu amee doom dafa jël doom ji daal di koy sànn sa armeel ya waaye nag ay xaj ñoo ko fa fekk doon lekk liir boobee atte nañu ko te soo muy tuulee lu toll ci fukki ati kaso danañu ko ko tëcca moom xale bu jigéen boobee Rufisque la dëkk waaye nag démb ca chambre criminelle réccu na mbir moomee nee na bu démb doon tey du ko defati yéen a kaay gi di estat xëy di ñu xibaar naan ñu coupe d'Italie tey ji la